Alburax Alburax ok c'est bon. non non Dakar gis moom baax na. E mooy jàppale gan bi dër yi ñëpp ñi nga xam ne nguurum jub la nag Sénégal ñu ngi doon démocratie bu yàgg daj ci lu ne. démocratie nag daa bokk ci la ko koy lël mooy la liberté d'expression Bougane di yëguñu fi lu mu wax moom Cheikh Yérim Seck ñu war a tax ñu teg ko loxo rawatina ñi nga xam ne ñoo yor réew mi fi ne jàpp naa ba histoire Sénégal amee ba léegi li ñu yëkkati ci lu lu bon li wax ci lu dul kenn xam nu mu toll kon ñoom waroon nañoo jomb di topp nit sax naa ko diffamation ak division de parce que seen carrière politique yëpp pendant dix ans nekkuñu woon ci lu dul diffamation ak division de pouvoir. kon encore une fois dama ñëw pour jàppale Bougane jàppale partem jàppale coalition bi mu bokk jàppale tous les acteurs politiques yi nga xam ne nguurum njublan gi mi ngi ci seen i tànk ma di leen wax nag ñoom muy le ministre la justice di wax les forces de défense et de sécurité que du ñu leen may dara cette démocratie-là nous l'avons construite ak coono yu bëri nit ñi am seen wax seen sañ a wax sañ wax kooku nag kenn du ko dindi et je lance un appel à toute la classe politique nee nañu nekk benn say xam ne li ñu def bugaan nit kenn ku ne daa war a jàpp ne yow lañ ko def parce que benn nit buñ noppiloo rek c'est toute la démocratie qui est abîmée li mooy yéen presse na ngeen xam ne liy dundal presse mooy liberté d'expression kon képp kuy defar défendre liberté d'expression ka ca jiitu mooy presse encore une fois maa ngi leen di féliciter parce que li ngeen def métti na trop ci suba ak lii a ngi fi xëy na añu leen wóoru leen sax ndax reer dana leen fekk seen kër lu ne mën leen cee fekk te leen taxut lu dul ñu nekk seen kër ngir mën leen wax li fekk moo tax la presse est un pilier essentiel de la démocratie moo tax ñu war leen a jàpp waaye kenn war leen a bul xatal encore une fois ngi maa ngi di wax Bougane daal ne ko maa ngi ci ginnaawam ak ñi mu àndal ñëpp nag ak ñëpp koo xam ne yaa ngi xeex pour démocratie parce que nag amul lu dul démocratie mënu wóote léegi ñu bëree bëri ci si direct bi ñu ngi ak ñu ngi euh, agressé Ngoné Saliou euh, Diop ak Maty Sarr Niang loolu moo ma yëkkati on est dans quel pays Bougane Gueye Dany moomul nit ñi ay militants moomul nit ñi quelques de ces militants laay wax parce que nag boo xoolee fii journalistes yi ak caméraman yi sax ñoo fi ëpp ay militants wam moomu ñu nit ñi sëñ Ousmane Sonko ba muy jàmmaarloog Macky Sall ñun on était sur le terrain di naan lacrymogène ñu naan ñu dinañ leen tëj kaso taxuñoo noppi ci lañ gën a mën a foncé nekkul Bougane Gueye Dany moo ñu teree def suñu liggéey man nag fekkeewu ma ko waaye damaa jël dégg yëf yi seetaan vidéo bi bàyyi li ma doon def beneen liggéey laa nekkoon damaa sos daal da ñëw parce que loolu duñ ko seetaan moomu réew mi. nekkul ni dañ lay wax yaay bàyyi kër dof yi rek nga bëgg ko moomale sa bopp c'est pas normal nit la na xam ne yëfi nit la war a def te nag il affaire à ces gens Ngoné Saliou Diop Macky Sarr ñaar dinañ dem porter ji plainte parce que identifié nañ ñi nga xamante ne ñoo def jëf jooju ils auront affaire à eux incha allah mais sax maa ngi dégg naa ne Bougane Bougane Bougane lan la ci da nga jàpp ne dafa nekk ci ginnaaw bi waaw mais ay ay ay militants wam lañ on peut dire ñoo tay vous n'avez rien à dire c'est pas à vous de nous dire suñu liggéey nan lañ koy defee moo moo leen dëkk bi moo moo leen dëkk bi da ngeen ni muñ opposez vous da ngeen ni muñ force la ñuy liggéey force la ñuy liggéey moo moo leen dëkk bi vous n'êtes rien nous sommes désolés aujourd'hui de constater que nous sommes en train de faire une vraie régression des pas en arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, ni l'attitude du Premier ministre, ni l'attitude du président de la République n'honore le Sénégal. Donc nous disons halte et nous, aujourd'hui, avec tous les membres de la coalition Samoussa Kadou, cette direction et toute l'opposition sénégalaise et toute la société civile et tous les gens épris de paix et de justice, nous aujourd'hui de, de, de, montrer les signes avant-coureurs, mais de nous donner la bande-annonce de ce qui nous attend. Nous allons véritablement étouffer cela dans l'œuf. Ça ne prospérera pas, donc il faudra euh, qu'ils se mettent euh, cela dans la tête. Et vous pensez qui fait peur, qui fait à la mouvance présidentielle, mais qui suscite beaucoup d'espoir de la part euh, de ces Sénégalaises et de ces Sénégalais qui accordent un intérêt particulier à ce que nous sommes

li ko indi nag mooy jàppale gan guy dari ñëpp ñi nga xam ne nguur mu jub la nga ñi ngi bëgg a dal seen bu yàgg daj ci lu ne démocratie nag daa bokk ci la ko la mooy la liberté d'expression Bougane di yëgu ñu fi lu mu wax moom war a tax ñu teg ko loxo rawatina ñi nga xam ne ñoo yor réew mi fi ne. jàpp naa ne ba histoire Sénégal amee ba léegi li ñu yëkkati ci lu lu bon li ñu wax ci lu dul dëgg kenn xamul nu mu toll. kon ñoom waroon nañoo jomb di topp nit sax naa ko diffamation ak division de force. nekkuñu woon ci lu kon encore une fois dama ñëw pour jàppale Bougane jàppale ah, parti am jàppale coalition bi mu bokk jàppale tous les acteurs politiques yi nga xam ne nguurum njublan gi ñu ngi ci seen i tànk ma di leen wax nag ñoom muy le ministre la justice di wax les forces de défense et de sécurité que du ñu leen may dara cette démocratie là nous l'avons construite ak coono yu bëri ni ñu am seen wax seen sañ a wax sañ wax kooku nag kenn du ko dindi et je lance un appel à toute la classe politique nee nañu ñu nekk benn say xam ne li ñu def bugaan nit kenn ku ne daa war a jàpp ne yow lañ ko def parce que benn nit bu ñu rek c'est toute la démocratie qui est abîmée li mooy yéen presse na ngeen xam ne liy dundal presse mooy liberté d'expression kon képp kuy defar demande liberté d'expression ka ca jiitu mooy presse. encore une fois maa ngi leen di félicité parce que li ngeen def métti na trop ci suba ak lii a ngi fi xëy na añu leen wóoru leen sax ndax reer dana leen fekk seen kër lu ne mën leen cee fekk te leen ni taxut lu dul ñu nekk seen kër ngir mën leen wax li fekk moo tax la presse est un pilier essentiel de la démocratie moo tax ñu war leen a jàpp waaye kenn waru leen a bul xatal encore une fois maa ngi maa ngi leen di félicité di wax bugaat daal ne ko maa ngi ci ginnaawam ak ñi mu àndal ñëpp nag ak ñëpp koo xam ne yaa ngi xeex pour démocratie taxaw ci réew parce que nag amul lu dul démocratie moom la wutaleeg ñu bëree bëri ak merci jërëjëf